لو كان بعض الآيات asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi samedi ñaar fukki fan ci weeru juillet atum 2019 lu waay di waaj maa mu koy jàpp na ci boole yoonu gaay fédération di Tidiane de gaay ñoo leen di yëgal ak di leen woo ci gàmm gi ñuy def at mu nekk ca gaay ga ca ndar bu ren bi samedi lay doon di yem ak ñaar fukki fan ci weeru juillet atum 2019 ñu di ko def ci haut patronage bu Serigne Babacar Sy Mansour xalifa général des Tidiane yàlla na yàlla guddal aw fanam te may ko wér ci kilifteefu mbooleem njabootug Seydi Hadj yëpp radiallahu radiyallahu taala anhu assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokki jullit ñu delu seeti ci ndigeural xalif général de Tidianes Serigne Babacar si Mansour ci tewayu Serigne mam alfa si Dabakh ak Serigne Habib si Dabakh le 20 juillet ak le 21 juillet ca gaaye muy gamu gaaye ak ziyaara Maam Alfahima Yoro muy bis bo xamanteni ni yag nañ ko def ñu delu seeti di ci wote ak ci teewaay ki nga xamanteni moy musile maire de Abdou Kader Ndiaye di bis boo xamante ni bu àggee ci le 21 incha allahu fas nañ ca delloo njukkal hommage ñi nga xamante ni daan nañ ànd ak ñoom di dox ci bis bi te yàlla dogal ñu faatu ku mel ni alxaaji Ngaal Ñang ak góor gi Abdoul Aziz fay ak Aminta gasama di rokku docteur Gassama nga xam ni bépp ndékki bu musaana am ci événement bi moo ko daan def ak ku ñuy wax Ali faal Dieye ak soxna Zeynabu Ndiaye ak soxna Rama Ba ñoom ñu génn àdduna ñu fas leen ca delloo njukkal ci dimanche bi incha allahu danañ leen fa wàcceel kaamil wasifaal leen fa sëriñ bi mu ngi ci woo le président Macky Sall ak soxnaam di soxna Marième fay Sall di ci woo le ministre des affaires étrangères di Amadou Ba mu ngi ci woo it Mouhamadou Makhtar Cissé di ci woo it ki nga xamante ni mooy monsieur Oumar Sarr bi maire de Dagana di ci woo it ki nga xamante ni mooy Adja Ndeye mu ngi ciy woo ki nga xamante ni nii moom mooy góor gi Serigne mooy Siré Dia di ci woo it ki nga xamante ni nii moom mooy Adja Marème Badiane di ministre d'État auprès du président de la République di ci wo mboolem membre yu gouvernement bi yëpp. xaaji Jibril Gueye maam Aida ak mbokk yu yàlla nga xam ne moo jiite mbooloo mi ak mbokk yu yàlla dogal ñu nekk ci dëkk ba te jiite fa muy Alaaji Rawaan Fall imaam Ahmed saw ñooy yëgal ñoom itam seen i yëpp nattangoo yoo xam ni ñu ngi wër euh, euh, gaaye nekk ci waalo ñu ngi leen di woo ci gàmm gi di leen ci invité di ñaan yàlla kenn ku ci nekk mu ñëw faak taxawaayam te itam lépp lu fa ñëw ci ndimal itam bañuñu ko ndax euh, gàmmu gi soxla na ndimal jàkka ji soxla na ndimal te amuñu la dul loolu. ñu ngi woo mboolem section yoo xam ne li tàmbale ci Casamance jaar Dakar Tivaouane ba bi ngay agsi Ndar euh, alxames ki suba 9h lu ñuy déparé Ndar ñu déparé Ndar dajeeg waa Rosso Mauritanie waa Mauritanie ca croisement Rosso ñu yendu ji njàng 4h ñu fay déparé pour arrivé Gaye. kon programme baa ngoog bu ñu bu samedi itam mooy gàmm gi 3 heures bu jotee euh, ñu ngi woote ci cérémonie officielle bi xam ni ci moom la ñu war a euh, tëral gàmm gi El Hadj Abdoul Aziz Mbaye moo koy taxawee ak Tamsir Sakho ñu ngi woo mboolem dëkkaale yi nga xam ni ñoom lu ñu nekkal muy waa Dagana bokkal ngambu ci ak ñëpp ñoo xam ni ñoo ngi ma bokk jotaay ci turu xalifa bi ak njaboot gi yëpp nag ñu ngi gërëm alxaaji Babacar Gueye di doom ci dëkk bi di sët ci maam Alfahima Yoro di sët ci Maam Fawat di sët ci Cheikh El Hadji lii yëpp tey moo nu ko yombalal moo ñi nga xamante ni ñooy feggoo di taxawu dëkk ba ci wàllu santé muy comité médical bi ñoom ñëpp muy ñoom docteur Yankoba ñoom ñëpp union bi alxaaji Jibi Guèye maam Ayda ma ko jiite ñu ngi àndandoo di gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullah ci gàmmu ren gi jàng yi ñu di ci ànd ak sëriñ Abdul Aziz Mbaye ak groupam di ànd ci waxtaan wi ak tafsir Sakho bésub diine bésub l'islam bésub alxuraanul karim gàmmu annuel bu gaaye ak fédération di Tidiane de gaaye samedi 20 juillet 2019 ca gaaye mu di dëkk bu am taarix bu mag ci a Tidiane